alaykum bokk internet eh, igfm.sn tay dañu am bekté contenté di dalal ki nga xamanteni eh, modi Sir malik donc tay occasion la ñu indi leen ko mu waxtaan nak yeen ci son bobu nga xamanteni mi ngi def buzz ci pot et Marichou donc eh, tay mun ngeen baña xam sax kan moy Sir malik mais buñu waxé waxee son bëggel bobu nonu nga xamanteni nit ñu ngi koy enjoy té mu nekk ci pot et Marichou dañ leen ko indil tay pour ngeen xam kan moy Sir malik donc Sir ñu ngi contane di la dalal fi ci igfm di la wax nga nuyoo internautes alaikum lay assalamu alaikum téléspectateur IGFM yup, yup, yup, fancy ku nek fi nga tok fans yep ñu soutenir depuis départ de la euh, c'est Sir Malik et je suis enchanté ravi d'être là sur ce plateau donc euh, son Bob, ma euh, euh, sans donc nous avons nan nga def ba pour bi donc troisième saison bi quatrième saison et tout sa collaboration avec nous, nan la pourquoi sans série un ami Coral lay def donc euh, donc euh, un jour dañu demoon seeti sam ben gain bu nga xamé Coral lay def euh, ba mu dégloo sama son yi mu ma genre mais yow sa son yi mën nañ daw ci série parce que son bu ma mënti dégg rek dafay daf may jox série télévisée kuy daw ci Dakar son bi te bo len si jox mën na donc j'ai vu un ami ñu de feu il s'appelle Aïdara Aidara Aïdara bañ ko wanee waa néegu rap musique automatiquement dañu dag ñu yónnee ko waa Marodi ci même jour bi je pense si Dougou. dugg xaaruñu sax ay mixage ak yooyu donc et boobu bataille tey son bi boum man sax j'ai rien compris dama jékki-jékki rek ki euh, fu ma romb dégg ay yow rek la love des affaire et puis franchement mu nek affaire bu nice affaire bu cool bu nga xam ne daf ma et non le demee. ok retour nga ci am. très positif hein, parce que fo meunti dugg da ngay gis ne que nit ñi nuñ koy nuñ koy appréhender da ngay xaw ma nan la ko mën a quoi mais euh, c'est c'est aw oh, j'ai pas les mots en fait. donc euh, euh, ce sa amour de musique fan la jogué depuis temps Boy, ba may nekk xale j'ai toujours aimé la musique même euh, parce que ba may nekk xale sax déjà man nekkoon na Italie def naa fa deux ans mais photo yu bëri yu nga xamantene suma koy xol ba may nekk foofu ay écouteurs la doon sol té série télé yi bañu dan daw dama dan toog ci salle bi bu commencer musique de mon côté commence commencement à fin donc amour bi je peux dire que c'est est-ce que du ma ça commencé genre <laughs> genre blague à part donc. Euh, ça a toujours été là ça a toujours été là xam nga yalla mom bu lay dugal ci ben affaire do comprendre parce que man amna ben moment bo xamantene dama ne bon man est-ce que duma nek écrivain bo maa ngi def ay CM1 commencer bind ay histoire ay affaire au prince ay histoire au prince euh, princesse affaire yoy donc indi école di ko jox xale ñuy lire na ma histoire bi dafa nice kañ ngay am kañ ngay recopier suite bi xam nga benn jour suñu professeur lii rek ne ma kuy recopier di def ay faute te dama mënoon recopier te du ma def faute après ma ruus ma ne bon ay fi mais loolu après ainsi de suite euh, boobu ba tey nag ba ma siy dugg xaw ma sax dama jékki-jékki rek gis ne maa ngi ci biir. ay 2011 la commencé carrément nekk si biir te depuis lors liggéey rek la doon def teju di job di job parce que du question que da ngay am bat bu neex rek après euh, du bat bu neex kese il faut musique da ngay am bagage intellectuel ci sa bop il faut que nga xam lu bëri ngay def ay recherche donc ci loolu laa nekkoon durant toutes ces années. non man nous muy jàngee mooy genre damay xol ñuy def limay def wax dem xol ñom naka lañ koy défé di appliquer dama madame woy chaque instant sama koñ flow lañ ma don avant lig flow te me déjà sama koñ damay me tok un mbedd biñ taaj gaay commencé j'ai impressionné tout le monde après dama dem affaire bi dafa gaay tay damay woy Arkeli suba ma finalement toog sama coin mais damay gis ben moment nit yi dañuy commencer ñew na ma do way dañ may bëgg sax neexal pour ma woy quoi tu vois donc euh, amour bi di grandir di grandir ba euh, donc sante yalla bu baax parce que am nañ ben benn certaine maîtrise du mané ne xam nañ lépp mais ñu ngi ci bay suñu war te musique mom ba ba ngay dé da ngay jàng jàng bi du mës a jeex bés boo demee ba ne mën nga rek mokal nga rek moy da ngay teunk sa bop donc. Euh, affaire bi jungle à vie tant que yaa koy def dang koy chaque jour di nga gis lu bess bien que depuis bo ba léegi musique mi ngi am mais musique chaque fois di nga am lu bess lo meune indi. lan style de musique. Ouais, man damay def pop R&B trap soul afro afro pop donc tout ce que ma voix me permet de faire donc euh, mon koy def. Euh, ok mon naa wax sama carrière dëggantaan ba ma koy commencé Touwesh Musique laa ko commencé euh, fa laa defoon benn single et puis avant même euh, foofu defoon naa son ak euh, Met Metal ak Omzo Dollar dama leen invité woon ci benn son bu tudd LOL Shorty xaw ma na xam nga ko mooy bu may naan dama amoon benn gel mu may jeex nga nde xel daa far dem bëri bref man ni moom laa mel je pense que Sénégal ñëpp xamoon une chanson boobu après ma defaat beneen son ak Canabasse ce sont de deux club après c'est la def single beug dem nga si New Era après moy production ou de Music ak donc. Euh, il la car il laa commencé commencer a commencé di enregistrer di denc di enregistrer di donc euh, labo laa jàppee woon quoi et puis mon tam daf mon copain permettre carrément ma tëju di liguer. donc nous, avec le temps bon ku nekk am vision quoi donc là maïs et si label Jiff Universal décidé carrément que 2020 demain vais commencer ma carrière et que là c'est parti

man tamit manager bi tout le monde lepp lolou la donc love du ci gor ak jigéen love ci lepp la bo xolé yaay ak Dom, lolou love la diggante papa Dom, doom mam ak set et cetera donc man ci lolou lay woy en général et puis euh, jéem me positiver à chaque fois des fois parce que loolu rek parce que dëgg la bi dëgër metti na yombul xam nga donc euh, musique en général yow sa apport mooy nga ñew defal nit ñi bu fekkente ne xam nga yoon benn yoon nga wane ko su fekkente ne tamit xamoo nga poser question si sa chanson comprendre nga donc loo xamul da nga koy dem gëstu tu vois donc euh, sama thème en général ça tourne autour de ça pour motiver les gens tu vois parce que ensemble bi son love avec le gars et découvrir Goum pour le moment mais il y a beaucoup de choses à venir mais d'abord en ce moment Mangi focus ci love sans yow bi ak yenen yuy génn dina am love et cetera mais yenen surprise lay doon xamna bu génnee ken du ma xaar fofu <laughs> nan nga gisee euh, évolution musique non musique bi Sénégal en ce moment gaay yi ñu ngi yéeg nañ ko carrément carrément côté vidéo côté son Mangi gis ne que oreille musicale Sénégal mi ngi tendre vraiment pour international quoi donc euh, lolo mon macha donc nous dañuy ñëw rapporter c'est suñu pierre à l'édifice rek c'est tout apporter suñu pierre à l'édifice bien sûr. où est bi un album amna ce mois ma son mën def cinq albums hein, parce que dans l'année 2011 bataille tey record maa ngi déjà 100 yow 2016 là 2016 laa ko prise euh, ma jox ko amna yenen moy comme bima la yu yu donc damay sama temps d'abord damay def promotion parce que def donc là si d'abord promotion promotion bu album bi joté rek dina guen no def sa promotion en fait euh, da dem ci télé yi dina ñam ay after work concert tournée nationale internationale ouais mais du du du bëri blabla ay action lay ëpp au fait euh, parce que man bo xolé yagna naa si game bi presque ñep xam nañ ma melomaan yi euh, léegi ay action rek lay def Amna affaire yu bëri yi nga xamé dina ñëw donc def ay affaire yu concret bugguma wax quoi donc euh, xam nga fi na moy loolu donc dem len suivre ma sama Instagram ngeen def Sir Malik bolen leen fofu après di ngeen am information yep en temps voulu et que il euh, y aura beaucoup de surprises déjà amna ben benn bi ñëw donc pas longtemps mais d'abord dañuy promotionner clip son Yow def len maximum de partage jotali len ko ñëpp après li ñëw may d'acc fofu fofu inshallah incha dernier mot. sama dernier mot moy euh, maa ngi remercier ñëpp ñi nga xamantene ne jàpp nañ si ak sama carrière ak euh, parce que affaire bi du man rek donc amna équipe bu nek ci ginaaw euh amna fuma ma tamit avant tout Age Music Ryan Faki ma koy nuyu bu baax parce que participer na bu baax ci sama avancement artistique et tout le monde di nuyu Wiz Wiz Jifa Universal bu nga xamantene ne instant bi mak mom ñe job eh, DF Pixel bu nga xam ne def vidéo bi euh, Tafa bu nga mon ne moom moo ànd moom laa manager ba ñu xamante yàggul mais on a pu accomplir des choses que euh, vite vite fait franchement et moi que remercier aussi sama papa sama papa sama chanson you play boy sama papa you play woo sama papa sama waay la machallah allah di ko ñaanal Mom ak sama yaay tamit sama yaay tamit mom sama papa commencé musique bugul won dama ne ko damay woy ak yoy sama papa ne ma lan rek xakataay téléphone quoi. après mu gis ne que dama sérieux ñu tok un an presque waxuñu léegi ba mu Sénégal sama yaay tamit ñëw ñom ñu sama yaay da ko tecc ci ma ci bi sama papa dafa xam nga donc euh, ñi ko rek sama yaay ubbi néeg bi ne ma kaay sa papa dagg na sa papa dee na kaay ni ma ñëwee gis sama papa concentré wu rek si laa ne ok ma nekk genre euh, joxe naa son bi radio def naa lii rek mu ne ma lu tax nga joxe commencé kaas sama yaay commencé kaas ne ko yow ba mu waxee dugg si ba tey boobu ba tey nag sama papa daf ci impliqué wu à 200 pour cent day régler ay affaire yu bëri Italie di régler yu bëri moom mooy sama manager foofu noonu euh, donc euh, di remercier sama papa ak ñëpp ñu si jàpp sama famille.

ממסודי le לכוואן Oh baby taluma taluma Winyi ai bidel Na we bangi sama we Hamalni yao baby Yeah bëgg dimbe la démb bala tey di ñëw yàlla wu ma benn yon sama life sans yo yo yo yo bon ok internet euh, IGFM euh, ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi nekkoon ak euh, ki nga xamante ni moo Sir Malick donc di leen jox dig daje ba beneen ak Kenen jërëjëf